waaw mbokk ñoo leen nuyu leen ziar leen jaajëfal à travers Senactu TV ndeysaan Alaaji Mbaye ak noonu waa ndeysaan diggante Alaaji Mbaye ak Adama Diouf ak da nga bëgg a sifflé Alaaji Mbaye ak Adama Diouf avertis nañ Adama Diouf ndeysaan lamba gi xam ngeen ni bis bii ñu rek mën a mel xam ngeen ni bis waaw at bi sifflé na diggante Alaaji Mbaye Adama Diouf yaa ngi bëri yaa ngi bëri Alaaji doon na ndeysaan waaye waaw Alaaji Mbay léegi bëre Alaaji Mbay jàpp na Adama Diouf jàpp na diggante Alaaji Mbay Adama Diouf ndeysaan Alaaji Mbay gi doon Alaaji Mbay gi doon Adama Diouf daan na Alaaji Mbay Adama Diouf daan na Alaaji Mbay Adama Diouf daan <laughs> laa ilaaha illallaah Diouf mu man Mame Balla Bakar Adama Diouf a ngi fecc ndeysaan ah, ah, ah, ah <laughs> waaye bu Adama Diouf <laughs> waa lii neexul Adama a ngi fecc ndeysaan kontaan na oh Alaaji Mbaye Alaaji Mbaye dama nga defar waat nga xam ne defet yàqul mbër defet da lay may jom nga dem defe doon Alaaji